xeex jàngoro yi coronavirus fii ci Sénégal moo waral njiitu réew président Macky Sall daal di jël dogal bu am solo dakkal lépp luy xeetu ndaje yëngu-yëngu wala bokk ay manifestation ci réew mi eh, ci diiru fanweeri fan boobu la mesure nag daal di dal eh, ci monde sportif bi rawatina eh, club de football yi ana nan la dirigeant yi gisee boobu la ndogal. bu interdit rassemblement public donc football day indi rassemblement public donc loolu lu baax la donc je pense que vraiment mesure mom mesure yu baax la parce que je jël pour askan bi et que ñu ñëpp ànd nañ te ñu ñëpp ñoo si war pour que li nga xamné ne moom la président bëgg ci askan bi mu am ko moy Covid bi bu a yam ci 25 ou 26 cas yi nga xamné mom lañ déclarer positif. pour préserver santé publique bi décision bobu nak ñun en tant qu'acteurs sportifs sportif du ñu mën lu dul di ko rafetlu parce que avant ñu nek ay sportif ay citoyens lañ avant ñu nek ay sportif ay républicains lañu état bi kon bu xolé ak information yi am yëpp ba gis ne jotna pour ñu jël mesure suspendre di bépp dajé lolu pour sam askan wi la. wa mesure bobu ñun en tant que sénégalais déjà en tant que citoyen dañ koy rafetlu parce que ñëpp xam nañ ni coronavirus euh, jangoro lo bo xam ne bu jéggi dayo bu nga xam ne léegi ngi touché donc aduna bi yëpp bu ñu mëne wax tam ne mës na am tamit aussi yàgg na mësul am ci aduna bi donc dafay jàngoro boo xam ne bu doy war bo xam ne nit ñi xamaguñu sax vaccin bi té nak lolu bu xasse ba am nak réew bu melni Sénégal dañu wara jël sen matuway mu situation bu xawa a doy war eh, ci président yi nga xamné ay club la ñuy gérer mën nañ wax sax ay entreprise ah, mom pap Thialis fay di président guédiaway football club eh, ni ma gisee mbir mi rek moy ab trêve anticipée. Manam, ginnaaw bi ñu footballé pàcc bu njëkk bi ci championnat bi lii xeetu noppalu dong di vice président Jaraaf moom giseewul ni ni mel ndaxte dafa ni club bi diir boobu yëpp mu nar a toog du am benn yëngu-yëngu dañoo a continuer di fay salaire yi mu nar a doon non moi je pense que avant tout y a la santé des gens donc bu ñu pandémie donc il y a une pandémie est loo grave ne lu garaaw atteindre donc si nga wax business de football je pense que régler le problème de la santé et aujourd'hui la pandémie le li président jël comme mesure pour arrêter championnat du Sénégal je pense que le lu baax la dañuy permettre tey que euh, Covid 19 bi bañ a dans tout le Sénégal maintenant en tant que président de de comme business bi je pense que nous on est presque le premier première partie championnat donc j'ai un dernier match première partie championnat mi e journée bi joué nañ coupe de la ligue je aussi premier tour 32ème de finale coupe du Sénégal je pense que même beaucoup ko président waxlu nous on allait vers la trêve. xam que le football sénégalais football professionnel ouais aussi club aussi xam nañu c'est moyens aussi ne suivent pas euh, te tey jii buñ ko arrêté itam day arrêté nga joueurs kon ne di am frais donc parce que l'entraînement est def ay frais mois bi bu joté te football lo tamit da ngay fay joueurs donc loolu yëpp aussi ay ay impact donc yu yu yu négatif la dal mais sur le plan purement sportif effectivement lo xamanteni ni si la dafay casser dynamique ku xale yi parce que xalé yi commencé won nañu jàpp rythme euh, comme niñ koy waxé commencé won nañu am atteindre cette vitesse de croisière sur le plan physique sur le plan mental sur le plan tactique liñ commencé won tek miñ commencé won di euh, les les les fruits yi ñu ci doon yakar donc dina am ben cassure bu am mais dinañ xol

donc en commençant pour nous en tant que club donc dañ koy un respect parce que y a réunion par rapport à ça C'est vrai que l'équipe de football nous top tout un mois pour le football on va faire des séances d'entraînement à 8 couleurs, seulement effectif bi donc faire aussi euh, conditions préventives nous nga aussi appliquer à l'entrée, avant les entraînements après les entraînements dans les vestiaires aussi. mais en tout état de cause dinañ fexe ba jël matuwaay yi war ak encadrement technique bi ak aussi autorité yi nga xamanteni ñom ñoo jité walu woowu muy gouvernement bi muy autorité locale yi. mënti am ba am moy certainement suñu entraînement day nek à huit clos parce que boko ko tamit aussi mom moy danaka public bi dafay ñëw te loolu rassemblement bi aussi li ñuy tere la donc loolu il faut ñu bayyi il faut que bayyi bayyi bayyi bàyyi bàyyi xel. donte sax fanweeri fan lañ nar a toog duñu amal benn yëngu-yëngu fi ci Sénégal mu mel ni nag situation bi euh, mën na weesu loolu euh, Youssou Diall moom dafa jàpp ni euh, bu luy wéyee ay perte yu am solo lañ ci nar a jëlee foofee ca jaraaf ndaxte doon nañu am ci ay recette 500000 jàpp 1 million 500 yi la nag circonstance bu xasee ba am ana ban position la sa ligue pro bi war a am wala bokk nguru Sénégal ban taxawaay la war a taxawee. on sera on on sera obligé de respecter ça parce que jàpp naa ni santé mooy prix mondial donc nous ñi am santé mo gën pandémie bi yam sommes li mo gën ñu ñu donc mu mois deux mois ñaan ko mais on sera obligé respecter le président Va à continuer de faire salaire normalement parce que contrat est lié et ça force qui euh, force majeure donc ñu ko ñu ko ñu ko baña fay dañuy fay salaire ñun bu football tamit nañu permettre match da parce que am na match yo xamni ne di nga am recette 1 million di nga am 1 million 500 am na yoo xam nga am 500 parce que recette yooyu aussi mom lay permettre parfois nga faire face à certains certains coûts tels que ay frais donc d'entraînement wala donc frais frais de pharmacie parce que joueur aussi dañuy gañu fo nga toppatoo len fo nga assurer sen transport etc cetera loolu aussi manque à gagner la parce que buñu jéwul rek buñu am ay recette mais lool yépp aussi da fay dépendre ci état bi yane mesure le le jël euh akit parce que li liy sooxe bi moom moo di ni stade bi buñu ñu doon football doon nañ am ay recettes bu bu compétition yi di am dina am yenen recettes yoy mën di am mais su lépp taxawee xëy na recettes yooyu day dag donc loolu dina indi ay jafé jafé forcément sur le plan financier mais dinañ xol aussi nan lañuy ñuy à à mënee yenen yeneen activité yoo xam dina mëna tax bañu def face à ces charges là yi nga xamante ne elles sont nombreuses et puis elles sont assez lourdes pour le club. Ah, Pape suis moom jàpp la euh, situation bi amna ay avantages me présenter présenté ci président club ndax té ci ay kàddoom fofu ci Guédiawaye football club euh, semaine bu ne euh, bu ñu daan waajal match lu tollu ci 500 000 francs dinañ ko génnee té jamono yi nak 100 000 francs dong meun nañ ci doxal.

donc pour faire un entraînement toute une semaine tu ne dépenses même pas 100 000 francs boog sur suñu club tu ne dépenses même pas 100 000 francs parce que les jours la majeure partie sont là donc il euh, faut déplacer déplacé wu dem transport quelques jours là. transport c'est intégré dans leur salaire donc en réalité doo génne dara dans la semaine juste peut-être de l'eau des trucs comme sont manquants. ay mais match pour une semaine chaque week-end tu dépenses 500 000. que ça soit Coupe du Sénégal, que ça soit Coupe d'Alpes, que ça soit championnat, tu dépenses minimum 500 000. Je pense que c'est ça. maintenant. Pour nous, un mois de football, je veux dire que un mois aussi, nous avons économisé en termes de, de, charges pour, pour, pour, pour compétir. dit, euh, dans tous les pays africains, nous démarré le championnat professionnel, l'État a fait mais donc on espère vraiment qu'à euh, partir donc, de cet épisode-là, l'État prendra conscience pour aussi nous mener le club parce que le club aussi donc, sonne. Euh, léegi kenn xamul que la reprendre peut-être on va reprendre dans un mois peut-être dans deux mois mais loolu même pour reprendre tamit aussi ça veut dire que calendrier bi dañ koy changer Ça veut dire que aussi on va jouer encore beaucoup plus donc de de de de de de, de mois et mois comme nous mu ko on sànq da obligé nga fay ces jours accès à encadrement. au niveau management dafa am loo xamante si moom contrainte Euh, ne xale yi dañ leen di professionnels ku koy liggéeyloo ni da nga koy fay donc tey jii ñu ñu am une pause forcée ou pas du tere luy suñu charge en tant que employeur ñu war ko wàccoo

mais je pense que ndàmpaay bi mooy je me rappelle bien ba ñuy président di préparer deuxième euh, élection deuxième tour élection ou deuxième euh, deuxième qui, mandat bi je pense que d'ailleurs on neen recevoir na le monde sportif donc grand théâtre ñu waxtaan mu waxtaan moom mu joxe euh, la nga xam ne la bëgg def football bi je parle du football pour mu le football il faut mu subventionner club bi te waxoon na moom dina subventionner club mais depuis lors waxuñu si te gis aussi les instances fédérales comme les instances euh, de la ligue professionnelle waxuñu si ba léegi mais j'aimerais que loolu aussi ñu ñu soulever cette question là ak président. moi je peux pas parler en ces termes là parce que euh, peut-être dès que naa ci benn niveau de responsabilité boo xam ne xam naa genre euh, pandémie yu mel nii bu amee bu yàlla dogalul mu gaaw dakk trop dina am feneen fu fu de charge yi di dina am feneen foo xamante ni si foofu la ñuy gën a soxlaa alal ji day metendo mais fi nga xamanteni ni si moom priorité la ñuy jiital te sport bi lu am solo la lu bax la mais nak santé publique mom moy priorité absolue. ñu nara jëm ci année blanche wala annuler championnat bi ci seeni kàddu ñom ñoo nekk ci boppu club yi japp nañ ni bobu le débat tel na. ñaanuñu ko yalla comme ni nga ko waxee mais bu fekkante ni yegg na ci yeen dayo yi.

ça veut dire qu'on tout semaine rek normalement calendrier donc c'est rattrapable Mais c'est un débat qui est prématuré parce que un mois Si on ba xam dañuy à ce moment là le débat là peut venir mais pour le moment je ne pense pas que que un débat qu'il faut instaurer à ce moment là parce que pour man euh, je pense pas que ni tay annuler parce que bo xol Italie information ils vont reprendre le demain ça veut dire que déjà avons une fait une planification prévoir de reprendre le 2 mai donc nous nous continuer tôt ou tard on va reprendre le championnat